te yaa ngi liggéey normal maa ngi di liggéey 7 heures 8 heures je suis à mon bureau à 7 h 25. je sors de mon bureau à 17 h waaw tous les jours. dëgg la donc nekkuma ci yu ñàkk fayda yooyu. déedéet amoo jot boobu soxna ay soxna yori doom du ma lekk riba. tu es un responsable. je suis un responsable. maintenant nag. Hmm. ce que les gens disent c'est pas grave. bu leen faal bu toll kenn bu déglu kenn waaw. suñu bëggoon tey. Hmm ko dem yonom mhm. littoral bi lañ koy jox mu aménagé ko. Mhm. moom moom moom sëñ kii. moom Mamadou. sëriñ Mamadou Mbow moom nu mu tudd Mamadou sëriñ Mamadou il faut mu bind ko xam nga bopp bi dama temps damay tipsé. c'est-à-dire aujourd'hui dans sa vision. Mm. il est en train de faire de poser des actes. il va aller vers des fil la filialisation de la SAPCO. la filialisation c'est-à-dire day am ay sociétés. yoo xamante ne parallèle wa, nekk. ok ok ok parce que. sakko limi drainé comme comme ressource. deug la dafa am ay terre. la dafa am ay ay personnel bo xamanteni mën nañ def liguey bu ci nek deug la man sëñ bi muum mi naa ko bëgg man. sakko propriété daf koy lancer waaw SATCO euh security daf ko wara lancer lancé. immobilier yoy il a il a beaucoup de projets. yo la Adus mayna la fi saa yu ñëwee deux minutes nga nga waxal ko SATCO. ci lu baax pour dire. waaw dans ses missions. Mhm. su ko ci nit ci jappalé il va réussir. dañ ko jappalé mais puisque man. Mhm. je ne suis pas ici en tant qu'agent de la SATCO. duma ci wax. parce que je ne suis pas télé pour représentant agence mhm. les gens connaîtront les missions de la. te tu nga voilà mais nous savons peut-être une personne qui mhm. mérite. accompagnement. de tous les agents ah, le directeur ah, je lui ai dit ça. tu es honnête. politiquement je ne fais pas de la politique je ne suis pas là pour faire de la politique je suis ici pour redresser une boîte il a beaucoup à hein, faire il a beaucoup de choses à faire il a beaucoup monsieur le directeur général je mhm. mais man sama avenir dëgg la su man crayon lañ la Je man rouge donc j'ai vous avez intérêt à ce que je réussisse. oui le dara mhm.

su ma santee mission je le fais su ma santee ne ma demal nga toog toogal sapko. Mhm. dans les médias ma toogal sapko dans les médias mhm. mais nak ñeneen ñi mom liñu bëgg duñ ko am il a mi diin parce que aussi benen bir en kii la tëbub voilà il est là ah, ah kii mooy seigne Mamadou mbou il est foo ko gis il a son chapelet fi fi sali la foo ko gis il a son ah, chapelet ndeysaan il a son chapelet dans sa main gauche te man maa ngi fi doog taf un directeur général. un directeur général bu bokku ci boor très bien man sa même boor bee sax man yow ka nga remplacer xawmako mom ko moom ku mu remplacé xaw très bien waye mom mi sëñ Mamadou mbou mi ah dinaa ko bak benen bir waaw tëbu ma tëb rek dem sab ko. déedéet C'est important. Ah, ah, ah. non Addis tey mom tay tay mom tay mom yana yaa ko pour tay face à Addis ngay def. c' à dire dama jógee. Hmm. fondation service le Sénégal présidence de la République. oui. primature dem ah. direction générale de l'ASP trop na café bi neex na naan ci café bi waaw ah, damay bañ euh, mm-hmm. nu mu tuddati ah, coor coor coor coor coor nag il faut ñu def plaidoirie bu baax pour nga jéggal ñu comprendre rek te baal coor baal ma sama mail ba ma la bindoon boo ko mënoon effacer tamit dina ma arrangé non dinañ ko effacer xam naa tout le temps mail bi lay xool ci coor moo war a bàyyi di di xoolaat samay di relire di relire oh. coor bàyyi di relire samay ma sama bind <laughs> baaxul coor ñi ñi ñi nga xam ne sama wax la ñuy jooy ñi ma xam dëgg xam nañ ne sama bind gën a moo gën a moo gën a bon euh, euh, sama bind baaxul coor bàyyi sa relecture yi ngay def arrête de relire mais hmm. mail coor ñu ngi suñu mail yoo xam ne ba ma koy bind suñu mail yoo xam ne ba ma koy bind ci àll laa nekkoon tout à fait

ASP yow fa mu jëlee. comme cadre yow fa mu le public confession Hein? très bien comme cadre liggéey ci dossier ASP. comme cadre comme cadre mec. su su wax salaire su wax salaire. mënoon jégal naa su wax salaire mënoon mais tu n'es pas pauvre. j'ai dit ma wax sama salaire ASP. Mm-hmm. mais mais moi ak bii ba ëpp fi nga je suis lésé. à la SAPCO, mm. j'ai perdu par rapport à mon salaire à l'ASP. La, à ah bon parce que dama démissionné ba pare. Mhm. de l'ASP parce que dañ la débauché non. waaw quand on te débauche tu négocies ton salaire loolu la loolu la texte yi wax. man xam naa li ma doon fayee ko ASP. Mhm. xam naa ko parce que j'étais un cadre. Mhm. et suñu boss am di woon na tollé sax au niveau de de de de l'Assemblée nationale. ma démissionné ba pare négocier salaire ba pare. ñëw démissionné. ñëw signé contrat xool li ma négocier mu wàññeeku. fekk démissionné naa ba pare. Aliou soo ko defee erreur nag waroon nga maa laaj. mais terewul. waaw waroon nga ma laaj terewul on fait notre job très bien su ma la waxoon nag yow. peut-être du demee noonu mais pour dire que. Mm. ñi jàpp ni dañoo xëy tàbbi. Mm. xëyuñu ñu xëyuñu ñoom ñoo xëy tàbbi dafa am jaar jaar bu ñu jaar ñoom ñoo xëy tàbbi. C'est-à-dire, quand je dis à l'opinion que je n'ai jamais chômé de ma vie, c'est parce que je ne l'ai jamais fait. Je ne sais pas si je suis Jakarta. Je ne sais pas si je suis boîte plus de 6 ans plus de 5 ans ASP rek la def 5 ans. dëgg la ñu débauché yóbbu la feneen. très bien sama kanam. SAPCO bii su ma ci defee ñaar at ci lay ëpp parce que tamit on pense aller faire autre chose. dans la vie parce que tamit jang nañ quoi am nañ xam-xam. am nañ xam mais mais mais y a d'autres ambitions. on a d'autres ambitions pour ce pays là donc pour dire que euh, noonu la démé té c'est un peu difficile de parler de de soi-même. non il y yow public confession nga ñëw lii da nga ñamal rek ma mosal. dañ leen di mosal rek. maintenant ci cas yu bari yi. mais yow dama séegoo ko ko defa yëre bi kii ñaareel bi la sa chéri bi la moo def bi ok mi ngi fi nag mi ngi fi ah, mi ngi fi moo tax tàggoo bi kon ñëw waaw par force mi ngi fi kon tàggoo bi jaru fi tàggoo bi dama bëgg rek mu leer non non non xam nga dañ la daan tàggoo waaw waaw loolu laa waaw